bismi dorna di julli ci Seydina waaw doora way ki ñu doon xaar di ñëw богиня faat faal ñëw leen ñu dem màndarga feeñ naa waaw waaw juma ja taxaw na ànd ak internet ñi saara la li mu junju rafet na

ki waral jotaay bi moom la ñuy jëm kon ziyaara kon ndokkeel ko rek la ñuy def ñu ko sëñ Omar waxee yaakaar naa ne nim tooñ nañ gis ko lool ndax dégg nañ kàddum waxtu wu nekk di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal te xam ne moom ay soppe rek la fi am ci barab bu mën a doon nag yaakaar naa li mu bégal ci nit kenn xamul nu mu toll léeg mu dugal kàddu goo xam sax da ngay ree ba sant yàlla waaye muy kàddu goo xam ne boo ko dégloo rek xam ne macha allah xam addina jamono xam ni mu doxee sax kon macha allah ko ñaan gudd fan lool te wér te am yàlla barkeel kàddum barkeel xam-xamam ndax barke na ba doog sax waaye yàlla dool yi ak ah, ki mu tuddee bis bi itam kazalika bi sax Maodo Cissé dégg nañ ci lool ndax. nit la ko xamne ne kat la kat la kat la kon nak alhamdullah kon dañuy sant yalla ci li ñu ko tuddee tay di yaatal diina la nak ndax it damay faral di wax lu bari yaakaar naa wax nañ ci tay barab bi tariqa tënkut ñu ñu ñun islam mo ñu tënk damay faral di wax ne bu julli yëpp dajeexee nañ wax li ñu bokk li ñu bokk mooy yàlla li ñu jëm si alayhi salaatu salaam waaye bu ñëpp dajee nga ne sëñ Tuubaa ne xatal nga parce que ñëpp waxuñ ca boo dee ci xatal nga a indi rek ku dul jëm ci du islam rek xatal nga kon nag la ñuy dund moom mii loolu la ñuy dégg ci ay kàddu ay njàngaleem ku ñuy déglu waxtu bu nekk di ko déggee waxtu bu nekk tey dañu am mbégte jàkkaarloo ak moom ndax yàkkam jàkkamtoon nañ ko lool kon ñu ngi lay sant ñëpp di la gërëm di la ñaanal. yàlla barke seen liggéey tey kon jërëjëf fii itam kon ñu gàttal kàddu fii rek salaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam xam naa ni ko mbokk yi waxee rek <coughs> gàtt lool ana sëñ Lamine bisimilah. yàlla dogaloon na. ndax bi ngeen tuddee sëriñ bi sëñ Modou sunu rakk bi ñu ñëw wax ma ko ma ne ko tuddee wuñ la ko man lañ ko tuddee tuddee wuñ la ko Cheikh Moussa lañ ko tuddee ndax comme daan wax ne bu ñu teree xatan nañu lislaam tënk loolee nag moom la ñuy tund moo bi ngeen ko ko waxee mu ñëw wax ma ko ma kontaan ci lool tey jii ñu ko tuddee bis dëkk bu ñuy wax njëfoori waaye dama leen ni bis bii moom a gën a ñor ci bis bis bii moom a gën a ñor ci bis boobu nag lañ jàll bi ko nag mobilisé na leen nag nañ teew ku mën a teew rek na ñëw teew si ci bis yàlla dogal na koraatu nañ juróom fukki junne mu ngi nit ñu jébbalee ko te da ko lool nag da ko lool da ko xeeb lool ndax suñu bañoon suñu suñu amoon la bëgg ay millions la ñuy andi ay millions la ñuy andi wa dekk ba kenn du def kon nak ñu ngi leen koy jébal te di sant yalla bu baax nak day sëriñ bi ñaanal ñu ñu gën koy man te xamne ne de dañ ko do deglu bu baax benn bis dama tok degg mu na waxtaan ba ci ci ci mu ne ci ci bi dafa xaw a ñu taajal ko ndekki fekk añul reeru ñu taajal ko ndekki mu yor loxo bu ci suuf ne yux yux yux yux ñu ne ah sëriñ bi loo def mu ne ndi si li laa di kon ñu ko kon koy dégg ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu ngi ko waxtu bu ma ko déggee rek fajar daal bu ma jógee ba julli moom laay jàpp te baa mooy jeexale waxi jeexalee nag lu muy tudd ci ci ci ci su ma xool daf ci seen dugg yi kon ñees jërëjëf te wér dara tabarakallahu alhamdulillah الحمد لله جل من قائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وعلى آله الطيبين wa saxaabatihi taahiriin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin mbokki jullit yu tedd yu fi daje ci diggante ñi fi dëkk ak ñi fi dikk bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo ak ci ay palaas yu wute ci diggante ay góor ak i jigéen ëmb ay mag ak i ndaw boole ay xarit ak i soppe dajale ay wëllëre ak i bokk lamboo ay doomu soxna ak i ay limaan ak i ay muqaddam ak i ay notable yéen ñëpp ci seen tur ci seen sant ci seen jëmm lay abbee làmmiñu nañu bi ñu àndak ak yëpp bàyyi ko xadara bu tedd ba xadara abdallah wiya ca kawlax ca lew na nga seen yëkkati nuyoo aljana ci aljana di leen ko jagleele fii ci kër Birane Khordia muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam maa ngi ci jiital ilimaan yëpp ñu nekk ak ci gox bi jël seen nuyoo teg ko ci loxol suñu baay bu baax ji di ilimaanu dëkk bi di bàyyi ilimaan siise ñaaree ne ci borom dëkk yi fi nekk ya jël seen nuyoo teg ko ci loxol borom dëkk mi nekk ci dëkk bi bàyyi seex taal ture nu ñetteele ci ñi ñu yëkkati bis bu màgg bii di ngontal kër Birame yëpp jagleel leen ko tuddee leen ko mu nekk seeni dëkkandoor ñu mel ni suñu mbokk ASC daara ji dëkk ak ci benn dëkk bi nawloo tax ak jëflante bu rafet tax ak dëkk dëkkandoor bu rafet tax yëkkati bi tuddee leen ko ci njiital suñu xarit suñu soppe suñu doomu nday Cheikh Abdoul Aziz ñu ngi koy ñaanal moom ak Modou Ndiaye ñu lay jàppale ci as euh, ci ASC bi yëpp yàlla dëgëral leen te dooleel leen. Mm. jagleel nuyoo ñaareelu pare bi tabaarakallaahu Serigne Maodo Ndaw Cissé Serigne Maodo Ndaw Cissé mii bàyyeekoo ba daaru Kër Makhorja su ko defee ñu yëkkati bis bi tuddee ko mu andak magam di suñu xarit suñu soppe sering Adama Cissé mu andak mbokam sering Musa, Moussa delegasi ak délégation bu riis bi ñi bàyyeekoo ca hadara bu tedd booba di hadara sëriñ Moussa Cissé hmm. kon duñu def lu dul sant leen duñu def lu dul leen ñaanal leen yalla hmm ci seen taxawaay bu rafet bi di sagal lislaam hmm. jagleen nuyoo seen mbokk mu baax mi bokk ci yéen bokk ci ñun di monsieur le maire mustapha Cissé hmm. su ma ko joxee loxo ñaareel tooñ ko ne ko xawma kan waaye yow moom man nga maire ci taxawaayam tabaarakallaahu ci yitteem hmm. xam naa ne lim yéene lépp yàlla dogal na mënu ko waaye yàlla na ko ci yàlla jàppale amiin yaa rabbi ci barkeet sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jagleel nuyoo tabaarakallaahu sang bu tedd bi fekk ñu ci jotaay bi sëriñ Souleymane tabaarakallaahu bàyyi ba mu daay fekkee si jotaay bi moom tamit bokk ci ko taaral hmm. ak sëriñ Balla Daraame Male ko ba ngey jall mom timit ñew ci bis bi sant nak jëm yu tedd yi ñu may ko lu barké li te mooy waa kër Birane xorja ci ru suñu baay yu baax yi baay bu li di alhaji Omar Busa di mag mu baax di mag mu rafet kala tabarakallah ak baay jim busa moom tamit yor nekk seen porte-parole xam ne bu waxee ñoom ñëpp wax nañ hmm. bu jëfee tamit ñoom ñëpp jëf nañ hmm. ak Mbaye Kébar hmm. mag ñu baax ñooñu tay des ci mbusulba gi nekkoon ak ndono guñ donnoo ci seeni baay ñu donnoo ko ci seeni maam ci taxawaay ci lépp lu rafet ak ci taxawaay ci képp ku bëgg a ci lu baax tey léegi yi mi ngi nekk ci seeni loxo yal yàlla jàppal leen ko ñun jigéen ñi mëneewuñ wax waaye xam naa ku càmbaroon bis beeg li ci aju lépp ñoo ci man soxna Mbombe tabaarakallaahu soxna Nenne ak mbooleem jigéeni kër Birane yi nga xam ne xamuñ lu dul liggéey ak jaamu yàlla góor ñun dëkk ca dëkk bi de xëy xeebuñ seen diine xeebuñ seen taxawaay kon soxna yi yal na yàlla jàppale leen dimbale xale yi daayira bi yëpp jël Lamine Bousso mii mu nekk seen njiit ak Ali moo xam ñu nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekk ci biti dëkk bi yëpp seen taxawaay rafet na daana rafet nag ak mu jot mm. waaye atam ren nii da cee rawati ndax atam ren mi li tax mu gën a rafet hmm. da ngeen a fésal ak bennoo hmm. ci diine ji te diine lislaam diine bennoo la mais nekkul diine bennoo hmm. diine lislaam diine benn la la mais nekkul diine benn la lislaam mooy dëkk bi te ruq yi mooy kër yi kër nag ci biir dëkk la mën a ne waaye du nekk ci ay tool bu dëkk ba dundee dëgg kër ya dundaale waaye kër ya mënuñoo dund sans dëkk bi moo tax tariqa Cheikh Ahmed Sakhir Lo moo ko firi firi mu rafet benn ndongoom da ko laaj ne ko sëñ Ahmed Sakhir Lo ci ban tariqa nga bokk ak kan mooy sa sëriñ mu ne ko tubéy ju ndaw de nit du koy ñàkk waaye ku am xel du ko génnee ci mbooloo loolu mooy tariqa ak diine kon moom ni ko firee rek taarif boobu doy la sëkk yéen nag tey seen ngontu gii da ngeen cee fësal bennale jullit ñi ci ni ko lislaam bëggee bañ leen a bennale bennale tamit lislaam bi bañ koo bennale yëg ne yàlla ñi bennoo ñor na ko lool ndax lim ñu sant ñu war ko fee liggéey war ko koo liggéeyal ci àdduna bi ci diina ji buñ bennoo duñ ko man hmm. moo tax mu ne danaa leen dimbalee ci benno gi ak benn la gi ci juróom yëf dana leen dimbale yéen nit ñi ma sant fi mission boo xam ne su ngeen àndul du ngeen ko man dana leen dimbale yéen ñëpp ngeen bokk benn soqeeku waay mooy bokk benn maam ba kenn du gisati moromam di ko xoolee bëtëb waasoo mbaa mu koy xoolee bëtëb raasoo tani tas suñu afrique gi yépp mooy waasoo mhm. suñu mbokki burundi yi xam nañ ci dara suñu mbokk afrique du sud yi xam nañ ci dara te xeex ak waasoo ak xeebaat ak waasoo mhm. ci mun dugg man naa gëmu mee du fay mhm. yàlla nag dimbale ñu ñun ñëpp ñu bokk benn maam ba tax na kenn mënta xeebati moromam war fa xeebati moromam ci juddu Mam ja kenn la nafsu nafsul wahida nafsu wahidatu bubu moy sun mam Adam. ni yalla ne ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsu wahida nafsu wahidatu bubu nak, ko dak rek muy nit boko dakke ci rek lay dellu seigne abdullah mbàkke mo ne nit moy lan mo ne moy ku bop ba nek mm-hmm. ci kaw tank yi nek ci suuf lo rek moy nit ku sa bop nek ci kaw sa tànk nekk ci suuf buñ la dàqee ci maam ci baay ci kenn rek ngay dellu muy aadama hmm. kon waruñoo xeebaateeti hmm. lu koy waral ñu ne ci juddu hmm. ku la gën a rëkkati rëyati aw askan di ko yëkkati rek dafa laa gën a rëy làmmeñ waaye amul ñu naan yax bu rëy ak yax bu tuuti ñëpp benn yax bu rëy lañ bokk sosoo muy suñ maam aadama moo taxoon yonent bi dundam lépp mi ko jeexal ci jàngale nit ñi ci ñu dellu ci benn cosaan suñ ma sa toog mu ne kullukum min aadam wa aadamu min turab yéen ñëpp ci aadama ngeen soqeekoo aadama mi ngeen soqeekoo ci suuf rek la soqeekoo kon nañ bàyyi raasoo nañ bàyyi waasoo te yëg na ñun ñëpp ñoo bokk benn maam mm. Seydina Isa toog na ñaari nit seq ko kii xees kii ñuul benn waaju xees ñëw nekk ku raciste ne ko ñaar ñiy séq la ku ci gën ku weex ki moo gënam ku ñuul mu ne ko tibbal ma suuf ki sa ndeyjoor mu tibb mu ne ko tibbal suuf ki sa càmmooy mu tibb mu ne ko ñaari suuf yi nga tibbal ma ban moo ci gën waa ji ne ko xaw ma ko mu ne ko man tamit xaw ma ñaar ñi ku ci gën ndax kilaahuma min aadam wa aadamu min turaab hmm. loolu lépp bëgg a delloo nit ñi ci benn kasaan boo gisee iblis ak suñ maam aadama mu ñu ñëwoon a déggoo dafa ñëw tabax raasoo ak waasoo ci pénc bi ba yàlla ne usjudoo li aadama fa sajadoo illa iblisa aba wastakbara wa kaana min alkafirin yàlla laaj ko ne ko maa manaaka an tasjuda limaa xalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al mu dugg ci ne ana xayrun minhu ndax xalaqtanii min naar wa xalaqtahu min tiin yaa ngi mu bind ci safara safara soqee ko ci leer moom nga bind ko ci ban ban soqee ko ci lëndëm leer naka lay sujóotalee lëndëm kooku moo njëkk indi waasoo ci pénc bi hmm. moo tax ku indi ak waasoo ci pénc bi rek mbokkam iblis nga keroog ba mu ko indee ci pénc mi ci la yàlla demoon garaatam ne ko faxruj minha fa innaka rajim mo inna alayka lak la yom hmm. di ne ko yow xajetoo ci sama hadara bi gennal sama rebb du dal du dañ mukk dal ci sa taw ba bis bi ni dekk la yi hmm. kon pinc ni beugul waso nan man gor pir la taxaw ne man garmi garmi pir la diw jam la hmm. diw teug la diw ñeeño la diw dañ koy toy waye bo mando bul bokku ci koy te lii rek moo yàq suñ penc mi te loolu lépp liggéeyal iblis la moo tax dafa ñoo bëgg a ndax xam na ne bu ñu àndee rek am doole bu ñu amee doole am résultat mu ñuy diffuser ci ay askan ne kii géwél la géwélay lan géwél du dara lu dul mooy kuñ géewal muy wax lu baax fàtte lu baax li ci moom fàtte lu baax li ci cosaanam di ko waxal ñeneen kooku ko gën ci penc bi kenn ñooñu ay lawbe lañ loolu mooy lan mooy ki xett aliwe yi ñu jël aliwe yi teg ko ci lupp sëñ daara yi ñu leen baasiin yett dënn yi yett kuur yi waaye ñooñu ku leen génnee ci penc mi penc mi yàqu ñu ne waaw ñii de mooy ñeeñoo ñi ñeeñoo mooy lan ñeeñoo mooy kuñ ñee rek kuy def lu baax ba ñëpp ñee la rek mooy ñeeño ku sañoon la ñu hmm. ñee su ko defee kon baat yooyu yëpp Iblis moo ko indi ci penc mi bëgg ñoo diffuser mhm. waaye li wér te wóor ñun ñëpp mhm. ñoo bokk benn soqeeku waaye bokk benn maam mhm. te lii la fa bi fekkoon moo tax dundam gi yëpp mu koy jeexal ci lu mel nii dafa fekkoon ñu jël nit ñu ñuul ñi tekki wuñ dara ñu xeeb leen def leen ay jaam bilaal xabasi yu nekk ab jaam yonent bi xëcc ko jegeel ko boppam ne ko yaay ki may gën a jege yow laay nome nga nekk noddukat bi nekk sama liqaamkat xanaa noddukat bu ne liqaamkat bu ne moo gën a jege ilimaan ja hmm. ñu jël usaamatu bnu saydin muy doomu nit ku ñuul di nit ku ñuul yàlla jël ko yonentu bi jël ko jegeel ko boppam ne ko yaay nekk sama bëkk néeg lépp lu may joxe ci teraanga sa loxo lay jaar mu jël saydu muy baayam nekk nit ku ñuul mu ne ko yow lañ xeeb yow nit ku ñuul kii waaye saxaaba yonent bi lu ñuy bëri bëri cent vingt quatre mille yow kenn nit ku ñuul yaa am darajaay yàlla tudd sa tur ci alquran kese benn nit ku ñuul alquran tudd alquran tuddul Aboubacar tuddul Seydina Omar tuddul Seydina Ousmane tuddul Seydina Ali mais tudd na Seydou min suñ mbokk nit ku ñuul ci falama qada zaydun minha watara zawajnakaha kon nit ku ñuul foor na mm-hmm. nit ku ñuul dañ koo xeeboon ba mu agressé Seydina bilaal ci kaddu ne ko yëpp na sawda mu mer jooy dem kalaame ko yonent bi yonent bi woo Muawiya ne ko li ma sonnee ci yéen ndeke ba tey jikkoy jaahili mi ngi des ci yow hmm. Muawiya daanu xalangu jooy ne ko yow Bilal dëggate ma te jël sa daan li dëgg ko sama lex bi ba dootuma gisati benn ngëneel ba tax may xeeb kenn kon nañ bàyyi xeebaate ci penc mi ngir waasoo hmm. nañ bàyyi xeebaate ci penc mi ngir juddu mm-hmm. nañ bàyyi xeebaate ci penc mi ngir daraja mm-hmm. nañ bàyyi xeebaate ci penc mi ngir alal mm-hmm. nañ bàyyi xeebaate ci penc mi ngir ndomba tànk lii lépp ku ko def bala ngaa dee yàlla déclarate la boo deeyee mu yóbbu la safaan ndax ko xeebaate rëy nga te kuréel yi waxuma dugg aljana mais xebat aljana du la xeeñ laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi mitqaala zaratin min kibrin la yonent bi wax lu toll ne pépp atome ku nekk ci sa xol bi ci rëy rek doo dugg aljana ñu laaj yonent bi réew mooy bëgg yére yu rafet oto bu rafet kër gu rafet soxla su rafet mu ne déedéet rëy du dara lu dul batanul xaq waxamtu naas rëy mooy xeet nit ñi ngir sa juddu wala sa alal ak bañ dëgg ku bañ dëgg mbaa nga xeeb nit ñi rek réew nga te ku rëy doo dugg aljana xet ak aljana sax du la tey kon yàlla dimbali nañu benn lañu ci cosaan ñun ñëpp ci aadama bu la kenn xeebate ci juddu bu la kenn xeebate ci yax bu rëy bu la kenn xeebate ci yax bu tuuti te ku fi jaay yax bu rëy deyaan bàmmeel xàmmeerul yax bu rëy moom sax dafa mel ni yax bu rëy boo ko gën a arrangé ndax mu gën koo mën a lekk boo ko moom la gën a bëgg kon boobu moom féetee na ko te yàlla dimbali nañu ci yalla dimbale ñu ñun ñepp ñu bokk ben diine diine ja mooy lislaam ku ko japp di nit ku ko won gannaaw di dof ku ko japp yéeg ku ko won gannaaw yées ku ko japp am xel ku ko won gannaaw dofe ku ko japp naat ku ko won gannaaw beekoor bo ku ko japp di nit ku ko won gannaaw di dof sa dofe gi dana feeng ci sa ci sa comportement dana feeng ci sa waxi dana feeñ ci sa solin dana feeñ ci sa lekkin dana feeñ ki sa naanin dana feeñ ci ni ngay dundeeg sa njaboot mhm. ku dulul julli rek fekk mu nekk mu nekk milliardaire sol kilo ci biir ay doomam loolu julli yërëmu ko mhm. nitewut mhm. ku dul julli rek mu a fekk mu mën a taxaw ci biiri doomam naan sàngara wala mu dorog yow di wax wax joo xam ne ku ko dégg di ko ku dul julli rek nga mën a mu taxaw ci penc mbaa mu toog ci penc wax lu mën a tas penc loolu jullit seexlu na ko moo tax lislaam dafay niteelu nit lislaam dafay naatal nit lislaam dafay barkeel nit lislaam boobu nag ñun ñëpp ci lañ bokk mooy dëkk bi te turuq yi du dara lu dul ay kër ndax inna diina inda allahi al islaam wa man yabtaghi ghayra al islaami fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin l'islam mom bañ kanaa bañ ko bokke yalla dimbale ñu ben téré mooy jangale l'islam moy al qur'an mo teggu sunna sunna teggu yeneen téré yi ku jang sunna al qur'an ku jang yeneen téré yi borom xam-xam yi dégg sunna mm-hmm. téré bobu di al qur'an di ndayi téré yi doy waris bépp téere te benn téere mënta doy waris ko ñun ñëpp a ko bokk amul alquraan yi murid yi amul alquraan yi tijaan yi amul alquraan yi laayeen yi amul alquraan yi naqshabandi yi ne yi seen alquraan amul inna haadha alqur'aana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashiru almuminin kon téere ba la ñëpp ko bokk amul ñii ne ñi lañ koy jàngee amul ñii ne lañ koy jàngee yàlla nee na jàngee leen ko ni ngeen mën rek ña ko mën a jàng ci maxaarijul xuruuf bu rafet ànd ak tajwid baax na ña amul maxaarij amu amul tajwid ba te man koo jàngee ni ko doon mag ñuy jàngee ba tey baax na ndax yonent bi saxal na loola bi fi bilaal di nekk daan nodd ta wax ashadu waaye ashadu rek lay wax siinum mu ajama da koy def muy siinum muhmala saaba yi di ko ree ndax moom éthiopien la yonent bi ne leen la siinul bilaali la siinul bilaali wala la siinul bilaali inda allahi siinu siinu bilaal gii ngeen di ree la su tooy ca yàlla moo tax boo déggee mag wax wala laa lii na jërul xeet ndax sa wala doo lii na ji mi ngi juddoo ci wala laa lii day mag moo ko def ci yow te ba fi wala laa lii di nekk mm. diine ji xamul benn problème keroog bu war a daal yi juddoo rek problème bu ñu am foofu la soqee ko kon nag buñ xeeb wala laa li nay mag ñi seen njàng mooma tey non jur njàng mu rafet nii kon téere bi benn la ñun ñëpp ko bokk waaw non bokkoon benn téere ñu am juróomi professeur ñu koy jàngale ñu am problème mais benn professeur moo ñëw di jàngale téere bi mu Seydina Muhammad ku ko dégg ci moom nga ko déggee ku ko xam ci moom nga ko xamee moo tax yàlla ne yow yonent bi waxal nit ñëpp ne yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jamian benn prophète ngeen am mooy man ci man ngeen di déggee alquran maa leen koy leeral ci wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaas tibyaanan li kulli shay'in lépp ci sayduna muhammad lañ ko xamee hmm. kon ñu bokk benn téere bokk benn professeur ko jàngal ndax dëgg yàlla wuutee waru fa amati ñeenteel ba ñun ñëpp ñu bokk benn xibla bu timis jotee léegi kay amul benn jubluwaay bu ñuy jublu murit ak tijaan ak ñëpp fa walli wajhaka satara al masjid al harami wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum satrahu muy kaabatal musharrafa la ñëpp xibla la ñuy jëf xibla kabaar jublu ko ndax kaaba ga mooy connexion bi nga xam ne jullit ñëpp ci la ñu connecté wu kaaba gi moo jox jàkka yi connexion bi ko suñ maam Ibrahima tabaxee ba mu des garaawaay ba mu jóor ko fu ne koy tuuri yàlla ne ko tuur loowu mën a ko tawan ko ba mu demee ba suuf sedd la digal malaaka yi ñu yenu ko tasaare ko ci adduna bi fu doj wu mag daloon balaa adduna bee tukki jumaa dal fa ba fu doj wu ndaw daloon balaa adduna bee tukki jàkka dal fa moo tax jàkka yi jumaa yi di ut ko ci kaabatal musharrafa mi leen ko joxoon kon ku bokk juróom yi loo war a pëccooti hmm. bokk benn maam raasoo jeex bokk benn téere bokk kon benn diine wàllu pas-pas war a jeex bokk benn téere wàllu texte war a jeex bokk benn professeur bu ko defee wuutee nuñ koy firee tabaarakalaa war a jeex bokk benn xibla lu ñu mën a wuutee ci rek bakkan la meedu yàlla Mhm. te kat loo gis ni xëccoo du yàlla yàlla ñëpp xat ci moom te kenn du xatal sa morom bi àdduna bi sosoo ba léegi kenn musta wax yang jullitam yaa ngi nii yaa ma tere mën a jaamu yàlla yaa ma yàqal xibla bi kenn musu koo dégg ñëppam ci kabaar di ko jublu te kenn xatalul sa morom ba àdduna sosoo ba léegi kenn musta dégg toppal fii yaa ma tere mën a jàng alquran te bi di benn amul kenn ku mos a wax moromam ne ko yaa ma teree bëgg yàlla mbaa yaa ma teree bëgg Sayyidina Muhammad ñun ñëpp mën nañ ko bëgg sa xol te kenn du taxal kenn kon lu ñuy xëccoo du yàlla yàlla defal ñu bénéfice na ñun waa Sénégal bénéfice ba ñett la bi ci njëkk yàlla may nañu suñ mag ñu fi indi diine di tasaare muy Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu muy xaadimu rasul si Ahmad Bamba mu ni Seydi Alaaji Abdoulaye Niass mu ni maam Limaamu maam Amari Ngoone Ndaak Alxaaji Amadu Dem Sokone Sëriñ Abbas Sall kàngaam yooyu yépp boo leen dàqee ñoo bokk meen ñoo bokk gaño zuriyatun ba'duhaa min ba'din lañ mm-hmm. yow nga am ay leaderu diine yoo xam ne ñoom ñëpp bokk yombul moo tax caawo gi mën naa wuute mais sàmm ya wuutewul caawa gi mën nañoo réeroo ngir ñàkk a xam mais sàmm yi ñoom réeroowul maam alaaji Malick mosta réeroo alaaji Abdoulaye lu toll ni benn gendee ko ci bis maam xaadim rasool mosta réeroo alaaji Abdoulaye Niass lu toll ni benn xëf ak ñoom ñëpp benn lañ xam soppante bëggante jàppante di yëkkati lislaam di ko sagal hmm. yàlla may ñu tamit ñun ñëpp ñoo bokk benn jàngin ba fi mag ñi nekk menn njàng na fi ne mooy njàng nu Tiwaawan mooy njàng nu Kaolack mooy njàng nu Tuuba mooy riwaayatu Warsh an Naafi' booba Hafs amagutoon booba Hafs mi ngi fi waaye tasaaroo wutoon ci réew mi moo tax ku gën a ji sa morom rek nekk di sëriñ daaraat dëkk ba mhm. bu Xaadimu Rasuul dana fi Alaaji Abdoulaye Ñas bindal taalibe jàngal leen wala jot la nges gën a yéeg xaadimu rasul bindal taalibe jàngal leen ndax benn école ñoo bokk nuñ ko génnee muy riwaayatu warsh an naafia hmm. bokk benn njàngin kese ñetteel bi yàlla may leen ñoom ñëpp ñu bokk benn mazhab suñ yi fi nekkoon yëpp tasaare diine ñoo bokk mazhabu imaamu malik imaamu malik mooy mazhabu alaaji abdoulaye ñes mooy mazhabu seydi haaji malik mooy mazhabu xaadimu rasul mooy mazhabu maam imaamu laay mooy mazhabu amari ngóore ndaak ñëpp benn mazhab lañ amoon ñëpp nekkoon nañ maanaam maliki yu na mazhaban ñëpp bokkoon benn xaqida xaqaayid yi boroom xam-xam yi koy jàngale bëri nañ waaye ñoom ñëpp dañoo tànn ne imaamul ashari yu xaqidatam bi ci tawhid ñëpp ashari lañ xaqidatan moo tax maam Alaaji maam Alaaji Malik maam Serigne Touba ñoom ñëpp ñoo bokk benn Serigne ci xaqida mooy imaamul Ashari yi boo demee seen téere rek fekk ko ca loolu nag yàllaa ñu ko buuñaa ñun waa Sénégal gannaaw bam ñu buuñaa juróom yooyu yëpp ñun ñëpp ñu bokk ko mu boole ñu ñett ñi mbaa ñeent ñi ñun rekk ñi bokk ko mooy bokk benn xeet ci zuriyatun ba'duha min ba'din bokk benn mësër muy imaamu Malik bokk benn aqida muy imaamul ashari bokk benn façon njàngin ci juróom-ñaari njàngin ñu alquran yi muy riwaayatul warsh kon lu ñu war a wute bakkan rek saytaane nag mooy ñëw góor sa bakkan rafetal la sa pas-pas rafetal la sa diine baaxal la ko bonal diine keneen bala ñoo xam ñoo nekk ci dëgg nekkut guñ ci dëgg nañ dem ba teel ca kanam yàlla waaye foo teelu naan ñoo nekk ci dëgg bu ko wax ngaa ñu ne yàlla fekk deexagoo waaye boo deexee ba taxaw ci kanam yàlla mu fay la hmm. ne la jëlal maa dem aljana ci ngay door a wax ne ñoo nekk ci dëgg hmm. kenn ku ci nekk nag sañ ngaa nekk li dal sa xel hmm. nga di ko jaamoo yàlla ci texte yi nga ko teg waaye nag bu mu tax nga ayibal kenn boo ko defee ayibal kenn rek yàqule ka yonentu bañ na ko ba ne ku taxaw sa moromam jullit nga ne ko yow yéeféer ga hmm. moom bu ko dënul rek yow yéeféer ga hmm. ndax yaa taxaw ci place ab yàlla di àtte hmm. te loolu bari léegi kéeféerloo sa moromam jullit loolu baaxul diine ji nga boole ci milliards yu ci bokk moo gën nga génne ci kenn ku ci bokk nañu wax ne ñépp bokk Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dafay wax ne wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah ku ngeen gisati génn ñoom nga di génnee baatab laa ilaha illa mm-hmm. bu leen ko noonoo jàpp leen ko muy seen mbokkam diine mm-hmm. ndax laa ilaha illa allah moo ñu boole léegi nag actuellement laa ilaha mooy xeex ak laa ilaha illa allah jullit ñëpp li leen naqari jullit yee ko teg mm-hmm. lu naqari jullit rek bu gëstoo ko koy teg rek ak jullit lay doon koo xam ne xamoo nooy def ba mucc ci moom boo ne aoudu billahi min ashaytani rajim mu defaraat dara nga ne laa hawla wala quwata loo ca man nooy def ba mucc ci moom laa ilaha illallah rek mooy xeex ak laa ilaha illallah ñoom ñëpp ñu waroon a bokk benn combat ñu waroon a bokk benn combat buñ bu ñuy combat dañ neex a duma xam ngeen ne tey li xew Palestine gii su fekkoon ne jullit ñi dëgg la ci ñoom du am ñu rey fa lu ñaar fukki junne nit hmm. ci lu teguwul ci dara ci ay caaxaan kese benn junni mënut a saqal hmm. ngir intérêt àdduna hmm. kese te tey ñu yàlla jox doole bu fekkoon ne waxoon nañ jug na lii du am rek ñu yem fa waaye ku yab sa bopp ku neex yab la jullit ñi ñoo xeeb seen bopp yablu seen bopp ba ñëpp yab leen waaye doole gi ñu yàlla jox jox ko yonent bi jox ko njabootam xajul ci benn doole amul seen xam-xam xajul ci benn xam-xam seen alal xajul ci benn alal force bu ñu am xajul ci benn force waaye dama ko am alquran yaa ko xam-xam te ñoo ko am ku am leader bu toll ni Seydina Muhammad yaay ki gën na leader ci àdduna bi ku am pétrole yaa yore alal ji mm-hmm. pétrole réew bi ñu ne ko yaa ko bu ko defee nag ñu ñuy sookale ñuy xeex ñu sàcc suñ pétrole bi di ñu jaay ngànnaay ñu koy xeexee lii nag mooy suñ problème waaye li xew Palestine kuy julit war naa naqari war nga cee ñaan yàlla yàlla toroxal banu Israël may ndam Palestine yi ne ci ñoo xam ne dañ leen a ci seen suuf xajal la ba nga ma xatal la ma ne da suuf man ma dëkk fi hmm? ñaan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 waaye bis bu yàlla intervenir dañu xam ne yàlla rek am doole mhm. te lii billahi yàlla du ko seetaan yàlla du mhm. su ko defee kon nañ xajoo pénc ñun ñuy yëngatu ci tariqa nañ xajalante yaatalante mhm. ñi nga xam ne gëmuñu tariqa nañ leen ay lañ damay wax ne ki tariqa ak ki tariqa xam ñu ñal mi ngi mel ni baykat bi bay ne damay engrais beneen baykat ba ne man duma engrais parce que maam yi daanuñ engrais ak bàyyi nga ne ko am nga ci droit mu jeex mais ki yàq penc mi mooy ki taxaw ki njëkk a taxaw ne ko yow xaw ma nga doo xam ne wet rek moo yàq penc waa gi damay engrais nga ne ko doo am nawet kii ne duma engrais nga ne ko doo am nawet te yow yéen dëgguñ ci résultat wu nawet yaa andi problème ci penc lii rek la képp ku ne damaa jàpp tariqa hmm. yaay ne damay bay mais damay engrais lu baykat laaj yépp danaa ko def ki ne man damay jàpp tariqa du jàpp ma tariqa kooku moom dafa ne danaa bay mais bu ma engrais la des nag mooy yaatuwante xol wax ne kenn ku ne ci ñun ñaar yal na ko yàlla may nawet bu kawe njortoo waaye yàlla moom dafa lottu ci mën a dugal ñu jàpp tariqa ñu jàpp tariqa yëpp aljana lu koy wàññi waaye yow nga jàpp ne rek ñu jàpp tariqa ñu war dem aljana wala ñu jàpp ni tariqa sàngam ñu war dem aljana ñu ko def ñëpp safara safara dañu weddi su boobaa kat yow boo fa duggee du ñàkk sa nijaay yu nekk safara hmm. du ñàkk sa jarbaat bu fa ne du ñàkk sa tante bu fa ne du ñàkk sa doom bi ta ne du ñàkk sa mbokk bu ta ne hmm. loolu pas-pasab yowóot la baaxul lan yadxulal janata illa man kaana hudan aw nasaara lu ca yàlla teg tilka amanil mu qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin kon aljana ñun ñëpp xaj nañ ca yal na yàlla dugal ñëpp aljana ci mbaaxam nga yal na yàlla yërëm ñëpp yal na yàlla teral ñëpp yal na yàlla jàmmal ñëpp yal na yàlla suturaal ñëpp yal na yàlla nangul ñëpp ci barkeb Seyduna Muhammad yal na yàlla defal ñëpp teraanga jotaay bii ngeen def yéen wër kër Birane jublu ci benn la jullit ñi hmm. yàlla ci yàlla dëgg hmm. ku ñibbi hmm. yàlla nga set wekk ci bàkkaar amiin yàlla ci yàlla dëgg ku fi ñibbi yàlla sa yaram sedd guy yàlla ci yàlla dëgg aajo bu nit am boo ñibbee yàlla faju lu jafewoon yàlla yomb lu tagoon yàlla tàggartiku lu dëgëroon yàlla yoram lu soriwoon yàlla jege yàlla mën na ko am na ko set na ko yàlla na ko yàlla def ah. nañ yëg na ñun ñëpp innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kenn ku nekk jox loxo kam dendal ne ko baal ma àq yaay sama mbokkam julit yàlla defal ñu jàmm ñu am sutura ne kenn ku ñëwee kum dendal ne ko yaay sama mbokk yaay sama doomu nday wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla la yónni de yàlla la yónni de صل يا ربنا وسلم على امان هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربنا وسلم على امان هو للخلق رحمة وشفاء أمعين وأيقات بنت بدا كان منه إلى الكريم مثقاه أمعين وأيقات بنت بدا منه إلى الكريم ارتقاء فقد خطأ رحينا اخوي رمى فيه لقاء وأن يدوم البقاء وابتدا في سقام في صافري يوم كحل منه قالوا الأنباء خرج الموس طفى إليهم مريضان وعليه عصابة تسمع ورق المنبر الشريف قطيبا لوداع وحوله المنعفان وأراد أن نبيك أتبع كتابي بعد هذا لهم وحاد المراء كان في بعد عائش مدة أسار مي وفيه بعد الوفاة ثواب وبيوم اثنين شهر ربيعين في يب منه قد أتى القضاء مقطعها في صخم رمز طه وبيوم الوجود كان لقاء وثلاث من بار ستين عاما عمره فيما حكى العلماء وأصاب السحاب حسن شديد غشيته كآبة الأمياء والعتيق صديقك نابس هي فأتاه من الصحاب البكاء وعلي